salaamaaleykum waa Soli Maîtresse na ngeen def yéen a ngi ci jàmm ah yéen de seen série bi neex na trop waaye léegi ñu bari xam naa dootuñ ko seetaanati maanaam yéen moom ku mel ni ay mareem yooyu ñoom daal dañ ciy wax wax yoo xamante ni ne soo toog ak sa njaboot wala dara dafay vulgaire trop fii Sénégal nekkul ne léegi série yi ñu ñi dañu toog ak seeni doomam ñépp di ko seetaan yéen war ngeen a bàyyi xel nit bu baax a baax ngeen wàññi yenn wax yi. ak yenn defin nii ngeen wàññi ko loolu daal moom bu ngeen ko defoon da ngeen seen série bi dina neex soo xoolee ci yeneen série yéen wax yi ngeen di wax ak yi ñi ngeen di defee nii ñeneen ñi duñ ko def yéen nag leen neex ngeen di jaar da ngeen di jaar si digg bi wax ko wala ngeen def ko nit ñi di ko dégg te nit ñi toog ak seeni doom ak loolu daal dafa am kersa ñun ñun loolu ñooñu gën a naqari ci seen seen seen série bi waaye nag série bi neex na waaye moom loolu daal la ko yàq moom seen yenn defin yi ngeen ko mënoon a bàyyi waxuma sax wàññi mais da ngeen ko war a bàyyi parce que war ngeen a di xool seeni langage ak seeni defin moom daal loolu moom moom bu ngeen ko dindi woon nit ñi dinañ sawar lool lool lool lool pour laala nag moom moom man lii daf maa jaaxal si moom moom grande dame bi muy woote xanaa nekkul si moom grande dame dëgg soo ko takkalee wujj dafa war a assumer ay responsabilité ba pareti moom li mu woote woon digganteem ak jëkkëram dafa meloon ni moom mooy yaayam loolu la waroon a continuer mais moom saalikam bi dafa ëpp trop day bëgg a ëpp loxo moom dafa dem sax ba nga xamante ni côté boobu neexatu ko ci ndaxte ni mu jëlee wujje gi moom moo metti trop te yéen da ngeen a jëloon laa la def ko comme koo xamante nii ne ku baax la ku responsable la mais li muy def ni tax na moom léegi rôle bi ngeen ko joxoon dafa mel ni dafa changé waat daal salaamaaleykum salaamaaleykum gëj nañu waxtaan gëj nañu déggante mais gis naa ne yéen a ngi liggéey naka liggéey bi naa yéen si jàmm bu baax naka mu naka yitte yi waaw tey seetaan naa épisode 34 ans en fait waaw mais man jàngat bi ma si def rek mooy joor toujours man joor xam nga man je ne pas comprendre que joor ren na bëgg ren na bëgg parce que joor bon moom li muy def nii est que mu ngi sóoraale si. digganteem ak Jalika te Dieyna Thior ak Jalika yi nga meilleur xam ay xarit yooyu xam te ni du ay caaxaan moo leen taxaw na nekk xarit dañu nekkoon ay xarit yu dëggu nii Thior menoon ak Jalika menu ko woon ak kenn donc lan moo jar Thior euh, muy def loo xam te daf koy regretter donc yow man daf may jaaxal quoi mais encore beneen bi ma si tuuti rek mooy si cadre de Marème ah su fekkee ne peut-être mu may dégg wala yéen man ngeen ko wax ngeen wax ko muy muy muy xool waxinam ni mu koy waxee quoi parce que wax bi parfois day xaw def vulgaire de trop parce que am na ay mag yu koy seetaan aussi am na ay xale yu koy seetaan euh, ndax waxam du yaax xale yi ndax waxam du am fu muy yóbbu xale yi tey ñuy bëgg di xool wala di bëgg di waxee permis yowu xam te loolu baaxul si xale aussi mag ñi koy seetaan tamit bon est-ce que duñu toog ne mais kii dafa réew dafa dafa caka wala dafa je ne sais ak ni ñu koy mën a kiwee quoi man daal su ma sañoon buy wax si genre jonge baax na ah baax na si jigéen mais mu xool quoi mënoon na ko waxee si beneen façon en fait bu gën nice parce que tey am na ay termes yoo xamante ni. man je suis pas d' accord mu koy wax en tant que benn film boo xam te ni presque partout dans le monde ñi koy suivre bari na donc man pour man foofu tamit wax ngeen si bàyyi xel bu baax quoi ak ñi ngeen di seetaan quoi ay jégalu bu baax a baax.